am nga sa xel mm-hmm. te war nga mën a doon ki nga xamante ne ku patriote nga mm-hmm. parce que jàngal nañ la éducation civique jàngal nañ la lu ne ba nga mën a bëgg sa réew mais su ma retourné tey jii nii mu toog ci palaato bi di wax loo xamante ne en âme et conscience amul mm-hmm. loolu gàcce la may teg bu ci njëkk bu ci njëkk mooy li nga xamante ni mooy Sen TV bi muy wax le président Bougane Gueye Dany mënu ko manager Sen TV mooy xaman mooy télé bi nga xamante ni

tëj nañ samay compte mais teewul ba tey jii nii xamoo leen fu muy jëlee lu ma leen di fay te maa leen fay jëree lu ma ci kenn dërëm loolu yëg nga ko si yeneen sénégalais yëg nañ ko kon bu toogee tey ni ñuy démissionné dañoo démissionné parce que dañoo amul salaire non dañ damay résumé rek damay résumé rek bu dee loolu ki nga xamante ni ah salaire moo ko fi bàyyi te ngay jot sa salaire loolu c'est foo faux débats mm. beneen chose mooy que ni nit ku nekk ñaan nga yàlla ci li ngay liggéey nga am ci évolution ñu démissionné ci TV directeur fi nekk TV directeur donc wax ni dafa manager macha allah bu ci boobu noonu bu ci bi carton rouge rouge bu financement lañ koy doyee première semaine ba dix mille hmm. un million mille francs ñu dem séti wa wal Fadjri gis fa Cheikh Niass ne ko kat 1 million cent yi dañ ko jaay ci carton rouge te askan bi ñom ñoko jënd te wal Fadjri ñëpp xam nañ té askan bi la loolu lépp si sunu maam di Lamine Niass ñun xam nañ ko ci lolu non ñu jël 1 million cent yi ko est-ce que 1 million cent yi ñu ko dugal suñu suñu compte pour pour pour campagne non mu pare mu jëlaat benen xaalis 1 million jënd ben article journal donc bu waxee ni lii c'est pour la campagne c'est des faux beneen bi mu wax ci wàllu parrainage may faral di wax le président Bougane Gueye aussi di wax mooy parrainage ñun amuñu problème de parrainage ba mu naan ñun waruñoo dem présidentielle xam nga kan moo am problème parrainage Macky Sall moo am parrainage moo am problème parrainage ak gëm sa bopp. ma fàttali la ba ñuy rejeté lors des élections ba ñuy rejeté dañ avons rejeté ay ay ay ay rejet yoo des rejets parce que taille comme ça kenn yow nga euh, gëm sa ñu parce que yow sa taille taille bi nga am suñu carte d'identité sa carte d'identité ñu photocopie dem jox société civile dem ci ministre de l'intérieur jox ko jox ko nous ñi nga Nous ni les autorités compétentes mais ba tay amul retour ñu 2000 doublons 2000 doublons 36000 et quelques des rejet yoo xamante ni non la. Mm-hmm. peut-être benn accent la li ñu doon bind tur bi am accent ñu rejeté ko. Mm-hmm. donc ñun amuñu problème problème mu parrainage parce que man j'ai assisté au moment ñaari élection yi fi jaar yëpp dama bokk si ñu doon defal ay ay ay ay parrainage. donc pour vous dire que ni mm-hmm. ñun amuñu problème parrainage. le président Macky Sall moom moo ragal Bougane. parce que la première fois bu ñu bàyyee lors des élections municipales ñun. ñu ñëw Dakar région de Dakar bi nga xam mouvement buy doog a jublu nga jël troisième 76 000 voix dans le département de Dakar alors que 11 communes ont participé par rapport à 19 communes. Mm. nga am nga troisième. jël ci troisième am voix. nous dem Rufisque nga gagné fa am troisième point région de Dakar bi nga troisième. Mm. en tout au Sénégal 222 000. 222 000 voix nga am. Mm. a un un problème de parrainage 0,8 1 non te dama lay wax ne boobu non, commune la plupart des communes. bokkuñu si te tey jii moo wax la le président Bougane Gueye Dany foo dem wax ñun waxatuñu waxu commune waxatuñu waxu département mm-hmm. dañuy xool yan village dem demul ci Sénégal mm-hmm. te loolu képp kuy suivre le président Bougane di suivre les superviseurs de gëm sa bopp fépp foo dem ba frontière bi Sénégal Gambie nga génn dem mm-hmm. am nañ fa des représentants comme ñun amuñu problème mu parrainage moom ñoom ñoo problème